Euh, Bataille-Fiti, région de Dakar département de Pikine arrondissement des commune de Yombol Nord lieu de vote Sem maman nombre électeurs inscrits 501 nombre de votants 312 nombre de votants par bureau 8 nombre de bulletins nuls 0 nombre de suffrage universel exprimé 312 Macky Sall 134 Idrissa Seck 45 Ousmane Sonko 92 Madi Kenyan, 06 El la Sall 35 Lolu moy résultat yi nga xam mo moo fi nga xamante ni si commune bu Yambel Nord ci région de Dakar département de Pikine arrondissement de Niay ci SEM Mame Diop lieu de bureau de vote 13 ba tey ñu ngi fii ci euh, commune de Yeumbeul Nord ci lieu de vote bi nga xam ne mooy seen Mame Marème gannaaw bañ leen joxee résultat euh, treize euh, du bureau treize bi léegi nag dañ leen di joxal taataan résultat yi nga xamante ni si moo ci bureau dix-huit bi fii nag ñu ngi fi am nombre électeurs inscrits quatre cent quatre-vingt-quatorze am fi nombre de votants deux cent quatre-vingt-sept am fi nombre de bulletins nuls zéro cinq am fi nombre de suffrages valablement exprimés deux cent soixante-seize